Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. salaamaaleykum euh, mbokku téléspectateur yu Equivox yi mbégte la ñuy amaat fii di ñëwaat ci marche bi nga xam ne collectif ñoo lànk ñoo ko organisé pour la libération de Guy Marius Sagna léegi nag dañuy ñëw jël quelques yoo xamante ne étudiants yi la ak ñenn ci ñoom ñu dem jëli réaction wu responsable lu étudiants yi. ngay def sëñ waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay tey ci marche nga xamante ne. ñoo lànk ñoo ko organisé pour dénoncer ñaari mbir bu ci njëkk muy dénoncer la hausse illégale et infondée du prix de l'électricité beneen bu ci topp mooy exiger suñu camarade bi nga xamante ne man ak sama yeneen camarade ak moom lañ jàppandoo woon ci giri pale bi donc ñu ba te ñun ñu bàyyi ñu moom ba léegi ñu jàpp ko à ce que ñu libéré ko voilà loolu moo waraloon tey suñu teewaay fii waaye tamit euh, di ñaax askanu Sénégal di leen wax ni ñun jour bu ñuy dem ci giri palais bi le 29. demuñu fa woon pour suñuy intérêt crypto personnel mais dañ fa demoon parce que dañoo jàpp ni sénégalais yi attanuñu li nga xamante ne moom la gouvernement bu Macky Sall bëgg a teg seen ndodd muy leen yokk courant bi parce que dund bi rek dafa cher courant cher location cher denrée yi denrée de première nécessité yi cher lépp cher waxatuñu dara ñu ci yokk courant bi ci yokk boo xamante ne amul benn fondement bu légal yokk boo xamante ne ni tey lu waral ñu yokk courant bi ñoom tey alal gi nga xamante ne cour corps de contrôle état bi mi ngi leen koy tuumaal que ni dañ koo sàcc muy cour des comptes muy ARMP muy OFNAC muy IGE muy muy corps de contrôle yëpp chaque année ñu épinglé seen i membres ñoom ay 29 milliards Prodac ay 108 milliards poste ak Siradia ay 6000 milliards Petrotim rakku Macky Sall Aliou Sall ay 30 milliards 533 millions Bambilor ay 9 milliards 700 millions Navire Olinda ak Cheikh Omar Anne moom dama koo jëlale yaa ngi dégg mu nekk liste bu gudd a gudd ci ay détournement de deniers publics loolu rek tey réglé woon na jafe-jafe askan bi yëpp loolu rek tey réglé woon na la question de l'éducation la question de la santé waxuma la électricité waaye loolu rek mënoon na tax tamit tey sénégalais yi ku doon fay 10 000 di fay 5 000 francs ci wàllum électricité loolu moo tex ñun en tant que sénégalais digne de ce nom ñu jógoon le novembre jógee place de l' indépendance ànd ak Guy mari Sagna dem ba fi nga xamante ne mooy giri pale ba pour wax Macky Sall que ni lii d' accord ci tey d' accord ci ëllëg taxawaay bu ñu amoon démb moom la ñu amaat tey ginnaaw bu ñu génnewee ci kaso bi su fekkee ne Macky Sall dafa jàpp ni suñu tëjee kaso suñu génnee dañuy ragal dem toog suñu rukk ndax na boppam parce que tey lañ gën a wu tey lañ gën a am engagement tey lañ gën a mën a wàcc sur le terrain te tey lañ gën a mën a jàmmaarloog moom. ñu nekk ak professeur Babacar Diop nekk kenn koo xam ne mi ngi ci xeexu gi Marius Sagna bi mën nañu ne sax ñoom ñaar lañ jàppandoo woon moom étudiants yi tax ñu libéré ko monsieur Diop ñu ngi lay laaj ani lan moo waral seen marche bi. Euh, man sama teewaay mooy ñëw ci sama wetu xarit. sama wetu doomu ndey sama wetu àndandoo nga xam ni démb maak moom ñoo bokkoon xeex bi man moom ñoo nekkandoo woon ci kaso bi kon su yàlla defee ma génn ndax université dañ ma taxaw ndax étudiants yi dañ ma taxaw su ma génnee kon mënuma fàtte Guy Marius Sagna damay jàppe sama bopp ab prisonnier rek ni man du ma nekk libre lu dul bu Guy Marius Sagna moomee boppam Guy Marius Sagna génn ci kaso bi dellu ci baayam dellu ci njabootam moo waral sama xeex képp ku woote ci Guy Marius Sagna wala ngay xeex ci Guy Marius Sagna jàpp naa ni war naa faa teew war naa faa wax war naa faa jëf ndax li ñu teg Guy Marius Sagna dama jàpp ne man lañ ko teg dañu jàpp ne toroxal doomu aadama la dañu jàpp ne toroxal doomu réew mi la loolu mooy suñuy tànk fii di continuer di xeex ba Guy Marius Sagna mën a moom boppam mën a ñibbi ci këram. léegi gis a def ay amul benn résultat bi nga xam ne positif na ana lan ngeen xalaat def est-ce que ngeen ne ni marché bi day génnee gi. am na résultat am na résultat peut-être li ñu bëgg moom mu ñibbi amaguñ ko. mais képp kuy seetaan actualité di xool réew mi di xool mobilisation yi xam na ni mbir maa ngi dox et ñun it jàpp nañ ni Macky Sall dina delloo si xelam dina delloo si sagoom ba bàyyi gi Marius Sagna mais ak lu mënti am même su ko bàyyiwul même si ça durera cinq ans chaque jour nous serons la e comme je t'ai dit moi je ne serai libre que le jour où Guy Marius Sagna aura la possibilité de rentrer à la maison du ñu tayeel du ñu tay du ñu ci toq du ñu ci sonn continuer xeex bi rek Macky Sall lépp lu mu ko jaral ñun jaral nañu ko ndaxte Guy Marius Sagna fee mu ne du place am moo doon nekk fii ci manifestation bi ci wetu askan wi. après marche bien sûr jafe-jafe yëpp moo ñu réew mi intéressé nañu la question du troisième mandat tout mais pour le moment prioritairement on a deux revendications mooy d'abord mooy courant bi nga xamante ne yokk nañ ko ñu wàññi ko baneen bi li gën a gaaw Macky Sall bàyyi Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna mën a ñibbi ci njabootam mën a dellu ci baayam de manière prioritaire mooy les deux grandes revendications yi nga xamante ni plateforme bi moom moom la moom la boot maintenant yeneen question yëpp dina ñëw ndax question yo loo xamante ni ñor na askan wi dinañ ci am taxawaay bu laajee xeex dinañ ci xeex lépp lu mu laaj nañ ko ci def. marche plan xalaat ni mën ngeen ko defaat. Euh, plan yi bari na ñi ngi seeti chef religieux yi pour ñu addu ci ndaxte diine du julli ak woor rek. diine dox ci dëgg ak wut dëgg ak xeex dëgg loola da caa am solo moo tax ñi ngi ci te am na lu ngeen ci gis dem ci biir réew mi wax ak waa biir réew mi mi ngi ci dem ci banlieue bi mi ngi ci dem ci diaspora bi mi ngi ci bu jaree ñu topp Macky Sall ci ay visite étrangère am ñu ngi ciy xalaat fu mu tegati tànkam ci àdduna bi ñu fekk ko fa yuuxoo ko ba xam ne mënta bàyyi Guy mari Sagna lool it ñu ngi ci xeex bi day tàmbali rek pour ñun mais lépp lu mu laaj incha allah dinañ ko def ba Guy Marius Sagna ma Sagna pour mu génn si kaso bi parce que Macky sàll c'est le garant de la constitution donc warul nangu ñu ne woon benn sénégalais doole donc mën a jàpp nit ak ay moromam nga bàyyi ñëpp tey ko kaso bi kooku néewal doole la te en que président ne moom mooy aar askan bi warul nangu ñu néewul nit un Sénégal. d'accord bëlëf la kooku amagul sens Sénégal yi Sénégal yi dañoo yomb a tourné li xew mooy Cour des comptes daa gën daa am ñu épinglé si état na wax si loolu mais pour pour fay coow loolu mu génnee troisième mandat ñëpp topp ko si amul sens na bàyyi waxtu bu jot. loolu samp na ba xam dana jàll du jàll. kooku euh, ñoo lànk ñoo organiser je pense donc dinañ leen bàyyi ñoom déglu seen programme après ñoo ñu wax suite étape bi la lay doon. jàngalekat la mais suma yaram dafa daw ba am ndëkk ndax ñoo lànk ñoo bañ duñu ko nangu noo tàngee loraangale duñ ko nangu duñ ko nangoo duñ ko nangu ñun way boobu moo doon suñu way tey dañoo am mbégte ndaxte réew mi. nit ñi léegi am nañu fayda jóg nañu Guy Marius nag dañu ko tooñ dañu ko këf en français c'est un otage or les otages il faut les libérer Guy Marius dañ ko war a libérer c'est ñu jàpp ko am na ñu def ko yées ñu nga xam ni bu ñu demee bu leen ñu dugg pale ba def ko lu yóbbu samba boo yooyu te kenn dara fekku bon gouvernement bi la ñuy waxal étudiants yi wax nañu man professeur d'université la jàngale na 35 ans bon étudiants yi mobilisation bi ñu wane travailleurs yi l'ensemble des syndicats des mouvements sociaux dañ ko war a bi Guy Marius di mëne combat boobu syndicats yi ñoo ci waroon bi ni ñu ko ndox mi la vie est kon nag le syndicat yi jël seen matukaay jël combat bi Sénégal yi dundaat du courage on vaincra we shall overcome gaañi ci kanam ci kanam. xam nga li may wax mooy lan képp ku toog sa kër yéen a ngi seetaan télé yi yéen ñëpp di déglu ñi toog seen kër yi naan ñii dañoo am jot ak ñii dañoo sawar ak nañ dem liggéey ak amuñu métier gis nga képp ku koy wax naa wax bàyyiwuma kenn buñ la joxoon drapeau Sénégal nga tàq. wax rek bu la joxoon drapeau Sénégal nga taal ko Guy Marius lii mu xeex buñ dugal ko ci kaso bi muy courant bu cher mu koy xeexal ñëpp di ko xeexal ba ci homme de tenue yi taxaw di ñu garder man maa taxaw fii ci télé bi déglu leen man maa taxaw ma ni Macky Sall la secrétaire général bu APR ma ni ko suuf si ngay jël di ko jox mbër yi di ko jox fecckat yi daggalal policiers yi ay terrain pour ñu am fu ñu dëkk suuf waaw man maa wax Macky Sall maa ni ko Macky Sall police bu ñu nekkee ci caserne yi ba seen ba ñu retraité bu ñu leen di génne ci anam bu ñaaw lañ leen di génne te du yoon man maa ko wax man maa ni bu ci retraité billahi boo ko fekkee ci location lay nekk ñu bari da nga leen man maa ko wax man maa ni Macky Sall pénitencier ñun ñi ñëpp kaso jombul kenn mais pénitencier yi buy sonn ñu war a gën a sonn xoolal bu ñu defee concours ba deux cent cinquante génn ci wala trois cent dafa am ñoom ci seen biir ñoo xamante ni dañuy dem ñoo ko defaat yeneen concours bu concours yooyu jàllee ñu bàyyi concours administration pénitentiaire bi dem def yële ndax manqué statut bu baax pénitentiaire yi ba soxoruñu ci détenu yi xam nga lan la dañoo mel na ay mala dañoo nekkul ci condition yu baax Macky Sall Sénégal vertu bi muy woote bu fekkente ni dëgg la ci moom ak nguuram nañ defal statut administration pénitentiaire laa wax te bu leen kii Mari Sagna bu génnee ci bi fi may daaneel sama wax bu leen foog ne ñuy arrêté combat bi dafa am ñaar yu ñu ñor xam nga ñaar yi mooy yan xoolal ñaar yi ñu ñor xam nga mooy lan troisième mandat ni ko Ahmed Aïdara di waxee troisième mandat xam nga fi lañ ko fiy tere suul gas su ko teree feeñ te kii du ñu ko du ñu ko nuñ ko nangu duñ ko nangu libéré Mari Sagna étudiants yi nee nañ étudiants yi mbir mi buñ ko libéré wul kii Mari Sagna dinañ dugg si xeex bi dañuy sax gën a dugg si xeex te nag te jàpp naa ne képp ku may déglu tey xam nga ne menace a du menace en l'air bu ñëwee dinañ tàngal dinañ tàngal ndax suñu nguur gi wax langage bii la ñuy dégg langage de la rue la ñuy nguur googu la ñu yàlla nattoo et c'est honteux c'est honteux tey ñu fi nekk nii ñii waroon na fekk ci amphi ñu def cours ñii waroon nañ leen fekk seen bërëbu liggéeykaay ñuy daan seen doole ñii waru nañu suñu papa suñu yaay fi ne waru na leen fekk kër yi si jàkka yi ñu ñu ñaanal di ñaanal réew waru leen woon fekk si mbedd bi tey ci moment boo xam ne suñu njiitu réew mi ngi bàqoo cinquante dix pour cent dañ ne te on daw Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.